ubbil yéene kay bi mu Njaay Cissé njiital ONC 3D Babacar Fall bu GRADEC ak soxna Fatou Diagne Senghor ñoom ñett ñi bokk ci société civile bu Sénégal ñoom la l'observateur xëy jox kàddu gi ngir ñu joxe seen xalaat ci yan la président Macky Sall war a régler ci juróom-ñeenti weer yi ko dese ci bopp réew mi ki ci jiitu di mu Njaay Cissé moom ñeenti yëf la gis bi ci njëkk mooy doole justice bi ñaareel bi di càmbar article bi màtt ñu bari ñetteel bi di démocratique di Babacar Fall moom yi mu jàpp ne njiit mi Macky Sall cee taxaw laata mu jugee ci réew mi nee waa l'observateur mooy réformer conseil constitutionnel tëggaat état bi ba tur wuyu borom bu ca noppee nag tànn nit ku amul benn péete maanaam autorité neutre jox ko mu organiser élection yi soxna Fatou Diagne Senghor mi taxawal centre pour le leadership des femmes moom jàpp na ne président Macky Sall xutti tànk tubayam ci lu dooleel àq bu nuppi bañal ko Ousmane Sonko Souleymane Ndéné Ndiaye moo ko wax wax ji mi ngi ci xët mu njëkk journal Tribune yéenekaay bi nañu démb la ko xamle ci émission bii di Grand Jury ci rajo moom premier ministre Sénégal ba woon di Souleymane Ndéné Ndiaye rafetlu na it dogal bi président Macky jël jëm ci ne du wut troisième kan la Macky di tànn ne candidat bu majorité bi ci élection présidentielle laaj boobee ñëpp laaj journal lii ko samp ci xët Daouda Diallo yéenekaay bi nee nañu ñëpp xam nañu ne ci homme de confiance yu Macky Sall yi ci la bokk bari nañu jàpp ne Aly Ngouille Ndiaye lay doon ndax rigueur bi nekk ci moom ki ci di Amadou Mame Diop président assemblée mi ngi ñuy wax ne Macky Sall li mu bëgg mooy tànn ab takk ndeeram maanaam koo xam ne du umpante ak moom ki mu war tànn ngir mu wutu ko journaliste ko nee nañu tàmbali na ko baataral campagne xaat dara xewagul ndax keroog samedi ba ñuy daloo gaar bu su ngeen leen wóoloo ba falaat leen dinañu continuer li ma fi tàmbali woon danañ yóbbu train express régional bi ba mu yegg kees yóbbu ko ba mu yegg mbuur moom njiit réew mi Macky mi ngi ñuy xibaar ne woote na am ndaje tey jii diggam ak leader yu benn bokk yaakaar yi ngir ñu waxtaan ci kan la tànn def ko candidat candidat yi ci élection présidentielle yi yi Vox Populi mi ngi ñuy xamal jigéen ñi fas ñu ci yéenee des ginnaaw yëral xët mu liggéeykat keroog samedi la ko xamle moom docteur Rose Wardini programme bu mu indi jëm ci développement bu dul bàyyi kenn ca programme ba bokk na ci wutal ndawi réew mi am xëy bokk na ci njàng njàngale mu tege ci yoon di éducation de qualité paj mu yomb matale programme buy dooleel entrepreneuriat ak programme buy waggar ci environnement bi Bougane Gueye Dany boroom gëm sa bopp teg na programme xibaar bi mi ngi ci journal Le Mandat programme la bu tënku wañ loxom ngir mu organiser ci réew mi ay élection yooyu ku ci bëgg a bokk dañ lay bàyyi nga bokk duñ ca tëye kenn sursa dolli ñu ci ne dolli na ci moom Bougane Gueye Dany ne bu ñu fi bëggee jëlee waa Benno Bokk Yaakaar ak seen nguur opposition bi tax ñuy wax opposition sérieuse in fokk dañuy booloo lu mu néew néew war nañoo def ñaari bloc yu mag ngir taxaw jàmmaarloo ak ñi fi nekk kuy nekk chef de l'opposition ci réew mi bés bi la journée nañu dal nga ndax ni ñu tëggaate statut chef de l'opposition bi wute wut ak président am da nga am ay koppar yu bari yoo mën a doxe bi ci réew mi day am protection diplomatique te état bi moo koy gàddul kaaraangeem waaye kii doon chef de l'opposition texte yi dañ koy tere muy jëfandikoo fitna ngir jot ci pouvoir bi te bés bu demee ànd ji ak majorité bi bés bi le jour nee nañu ca lay doxee ñàkki statut chef de l'opposition ñu yëri l'observateur mi xëy yëri xeex ba amoon ca kaso ba ca Mbour garde corps yu Ousmane Sonko yu ñu arrêté woon ci caravane de la liberté bi Ousmane Sonko doon def te ñu tëjul leen ca kaso bu Mbour ñoom garde corps yooyu ñoo fa doon jàppante ak benn groupe gangster bu nekk ca ba ba deret yéenekaay bi nee na moo leen boole Abdoulaye Ndiaye bokk ci garde corps yi Ousmane Sonko L'Obs nee nañu infirmerie la mujj ndax dañu ko soode ak ndox mu tàng moom si suñu chaîne YouTube ngeen door saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak bitim réew